voilà ñu ngi fii ci terrain ASC ECCO euh, di ñëw fekk la fii seen terrain entraînement xool na lañuy préparé seen match bi nga xamante ne nii mooy dox seen diggante ñoom ak ASC Mengo mu nekk match bi nga xamante ne match bu am importance la si waa zone 2. donc mu nekk final bi nga xamante ne final historique la si ñaari ASC yi donc xamante nañ nag parce que daaw daje woon nañu ASC Mengo éliminé ko en demi final dem final donc ren yàlla def ñu dajewaat fi en final. donc mu nekk match bu nar a metti seen diggante mu nekk vendredi 21 euh, fële si stade ñëw fii seet si leen seen terrain entraînement xool naka la ñuy préparé seen match bi nga xam te ne nii vendredi ak euh, Moussa Gueye di euh, secrétaire général u donc ñu ñëwoon fii seet si leen tey seen entraînement xool naka la ñuy préparé seen match ñoom ak bi nga xamante ne nii final zone 1 la bu Guédiawaye donc tey mu nekk ñaari ASC yi nga xam xamante ne ñu ngi lay nuyu SG waaw maa maa leen di fay waa Guédiawaye eh, info vous êtes euh, les bienvenus comme nous ngeen ko instant e nous sommes euh, à l'entraînement nous euh, préparer notre finale contre l'ASC Mengo le 21 décembre incha allah. voilà donc ngeen di joué ak benn ASC bi nga xamante ne nii daaw daje ngeen ñoom ñu éliminé leen final donc naka ngeen di préparé match boobu. waaw je crois que loolu mën nañu jàpp ni loolu c'est c'est une revanche ndax ASC Mengo daaw euh, ñu ne ñoom dañoo daje demi final ñu def 1-1 ñu si yàlla def ñu dem tir au but mu gagné ñu. te ñun ECHO dañoo am benn vision dañ koy defee nee nañu ah, Amadou Bari képp ku ñu dóor quart de finale demi finale dajawaatee dañ la dañuy may ndam si sa kaw final bi ne dañ koy préparé yaa ngi ko gisee nii supporters yaa ngi si joueurs yaa ngi si daal incha allah daal dinañ def mooy lépp loo xam ni ñun ñu ñu ngi koy war a def dinañ ko def di woo la population di woo ñu nekk ñi ku dëkk écho pour que pour que le 21 incha allah yàlla daañuy may ndam si kaw ASC Mengo. est-ce que mën nañ jàpp ne ASC bi pare na pour jouer final bi. waaw pour l'instant mën nañ jàpp ni euh, ASC écho mooy sur sur euh, sur sur tous les plans noonu mooy pare nañ daal pour jouer suñu final. na nawetaan yi ba mu commencé ñu mën naa ne sax ñun depuis nawetaan yi ba mu commencé depuis euh, le depuis journée ba léegi lañ ñun suñu xel sunu objectif li lañ fixé woon ak coach bi mooy lan dem final kon yàlla bu ñu yóbbee ba final instant bi daal mën nañu instant daal nous sommes euh, instant daal waaw si si daal

donc dem nañ fa fess sen course set si dirigeant yi donc course ñu ngi lay nuyu ñu ngi len doli fay course tay ngeen jëm ci ben match bi nga xamanteni ni match bu am importance muy yeen ak AIC Mengo daw ngeen dajé AIC bi éliminer len en demi finale donc naka nga préparer sa équipe pour ñeu fess les match bi dem vendredi ba d'abord ma ngi len di nuyu parce que c'est la première fois man Dakar la deuk ñaateel la deuk donc liñ doon wax liñ doon wax daw man fekkuma fi won quoi donc li ma fekk ren rek lay mëna wax quoi di wax ni rek Mengo c'est une bonne équipe comme ñun ñu nekkee une bonne équipe c'est une finale mais li ma man sama année dama ñëw fii pour jëlee leen ko quoi loolu moo na sama objectif te yaakaar naa ne maa ngi ci yoon donc dañu dem nañ ba ci cappaandaw ga euh, yaakaar naa ne ñun li ñu waroon préparé doo bàyyi ba mu des une semaine nga koy préparé da koy préparé dès l'avant donc maanaam ba ñu jëlee équipe bi ñun lañ jël décision ni suñu liggéey dañ koy def ba phase départementale ba phase régionale. donc sànq bi ñu demee fële ci ASC e ECHO seen coach bi ñu koy interrogé dafa ne xam na équipe bi muy jël bu baax a baax ci côté jeu donc yow est ce que yow xam nga équipe bi ngay jël ASC e Mengo. waaw waaw waaw waaw seetaan naa leen seetaan naa leen benn yoon rek quoi seetaan naa leen benn yoon mooy li ma xam nga équipe moom soo ko soo ko nattee si benn match rek da ngay juum donc ñun en général boo xoolee suñu match yëpp chaque semaine. saa yu ñu see chaque am benn joueur wala ñaari joueurs yoo xam ne dina denc suñu équipe ñu dugal fa ñeneen parce que match moo koy laaj. donc moom bu fekkee moom jàpp na ni xam nañu kon man jàpp na ni moom pour moom pare na mais man jàpp naa ne sama liggéey ba léegi des na am na lu ma xool si ñoom mais jëm naa ne mun na am ay surprise yu mu teg. donc lolu ci lolu lay liggéey actuellement ni quoi donc wa. est-ce que mën na jàpp ne équipe bi pare na pour jouer vendredi. waaw waaw nous sommes prêts actuellement nous sommes prêts. nous ah, sommes si côté médical aussi amuñu benn problème. du non amuñu on a aucun problème ci côté médical. Eh, eh. Euh di di di ñaan Yalla rek benn jour baña gañu, di ñaan Yalla ñëpp am jamm, ñëw seenaan match bu neex xam nga parce que final la quoi final la fête la mais fête bo xamné kenn bu ko perdre tamit. donc di ñaan Yalla, Yalla dimbali ñu yobu ñu tek jamm, ñu mun ko jouer ak jàmm mun a ak jamm, mun a ñibbeeg jamm. naka nga japp né tay match bi lu moo koy gañe wa d'abord abord supporter d'abord supporter yi ñoo koy gagné parce que supporter ñom ñoy pousse équipe li ci dess moy coaching mais coaching bu bu bu coaché li muy coaché pare parce que souvent mën nga wax li ngay wax nga dem ba sat mu am leneen lu feeñ match bi là je dis que les joueurs qui vont prendre les responsables pour gagner cette match. voilà sank aussi dañuy interroger coach bi mu ne non seulement xamna na say équipe mais xamna ci quelques jours yi nga xam ba li ma ay Pascal ainsi de suite donc nee na xam na nu leen contrer est ce que mën na japp aussi ni mu leen xamee nga leen xamé moko ben mu leer moy moom mënu contrer. moo ko si télé laa jàkkoon mu mënu ma contrer li ma war a def man dama koy def mënu ma contrer mu nekkoon course bi nga xamante ni vraiment boo ko gisee mi wax sax xam euh, nit ku en sans foi la donc bu dara ah. nekk final bu nekk vendredi fële see sat amul bari ci entre ASC ECCO ak ASC Mengo muy ñaari ay yi nga xamante ne vraiment xamante nañ daaw lañ daje woon ay ASC Mengo éliminé ko en final donc ren en demi ren ñu dajewaat final donc ñuy souhaité ñaari ASC yëpp bonne chance et que le meilleur gagne merci coach voilà donc am maanaam football amul violence xaju fa quoi man gëwuma loolu quoi football moom ñett jàmm match nul défaite nul donc li xewoon demi-finale bi damay ñaan yàlla côté waa Mengo côté Eco côté ñëpp ñi nga xam waa zone 3 zone zone Guédiawaye bi ma xam ne doon fi ñëw ren ñu ñu ñu moytu loolu parce que day yàq image day yàq image yu nawetaan donc ñi ñaan yàlla rek violence ñu bàyyi ko te xam ne football la il faut kenn gagné kenn ki ñàkk mais que le meilleur donc moom ni mu ko waxee yaakaar naa noonu la ko coach su ASC Mengo bi terminé woon sur la non violence mu nekk ñaari ASC yi tamit ASC yu fair play lañ quoi qu'on si zone 1 e bi donc ñuy souhaité la euh, capitaine Omar Sow capitaine ASC euh, ECHO donc ñëwoon seet si leen fii seen euh, match ni ngeen préparé seen final bi nga xamante ne mi ngi dox yéen ak ASC fële ci stade Amadou Barry vendredi donc est ce que mën nañ jàpp ne euh, seen yoon pare ngeen physiquement pare ngeen mentalement aussi pare ngeen. waaw merci ñu ngi préparé final bi comme ni ñu koy préparé parce que mën na ne lii du suñu première finale quoi parce que boo xoolee ASC e ko yàggul ci ba mu ñëwee Guédiawaye mais mak la ci nawetaan quoi boo xoolee 2015 0 3 finale. donc final bi du doon luy bess ñun quoi ñu ngi koy waajal comme ñu doon waajalee final yi précédente yi di ñaan yàlla may ñu ndam quoi. voilà comme ni nga ko waxee mën nañu jàpp ne ASC bu tàmmu final la donc loolu xam nañ ko reconnaître nañ ko donc ngeen di gisee ASC bi nga xamante ne muy ASC Mengo mu nekk ñaari meilleurs ASC yi nga xam ñoo nekk ci département bi donc est ce que yéen réellement xam ngeen ASC bi ngeen di joué. waaw per parfaitement xam nañ xam nañ ko bu baax parce que boo seetloo daaw moom moo ñu togloo woon quoi moo ñu togloo demi final donc on va prendre notre revanche incha allah. voilà donc ñoom seen biir wax sànq da leen dégg ñu ne yen yene len xamal li final donc yen yéen len leen xamalaat coupe naka nga mën a wax gogo waaw parce que bu ne ñom neexna mais dolli bi tamit mën nañ xam ne ni muy demee quoi parce que ku la jaar ben yoon xam nga ne bu mu duggee woon. donc du coup ils vont chercher d'autres d'autres moyens pour gagner ñu parce que. xam nañ demi final certes ñom ñoo ñu togloon mais bi dina len surprendre trop. voilà est-ce que mentalement mën nañ jàpp ne say coéquipier par nañ pour jouer match final bi. bo xolé ambiance bi l'image ne ment pas boo xoolee image bi xam nga njott yi rafet na te am si yaakaar bu baax a baax inshallah. baax est-ce que yow la nga jàpp ne tey mooy gagné match bi. lu jàpp mooy gagné match bi mooy corriger expérience parce que boo xoolee ñoom ñoo ñu toogloo daaw c'est-à-dire bu ñu toogloo daaw rek am ci expérience donc ça va pas se répéter incha allah. waxuñu coupe zonale de mais dañ bëgg a jël coupe yu zone bi yëpp après ECHO nekk leneen parce que ECHO boo xoolee. ak lu fi nekk ci petite catégorie ak senior ak lépp war nañ mën a dem ba club boo xamante ne nii au delà des neuf ans loolu mooy suñu objectif quoi ñun. voilà sànq capitaine ASC Mengo bi ñu koy interroger dañ ko laaj sur la non violence vraiment mu woote ci jàmm yow aussi ba amoon message bi nga xam ne yaa ngi koy passé supporteru ASC Mengo ak ASC Eco la nga leen wax sur la non violence. ak ak Mengo zéro violence parce que boo xoolee ñoom seen supporter ay noble lañ. ego tam boo xoolee seen supporter ay noble lañ parce que boo xoolee ego nu ñuy demee stade rek moo lay wan ne demuñu pour xeex quoi parce que dañuy solu ànd ay xale yu rafet laal taxi xam nga dem seetaani gañe bu leen gañee sax duñu kaas ci joueurs yi ci réseaux sociaux yi la ñuy kaas maanaam boo xoolee ECHO duñu sax nawetaan comme au niveau la ñuy def quoi franchement kon maa ngi wax supporters yi ñu xam ni nawetaan la te sport la foo la ku yàlla may ndam mu xam ne noonu la demee parce que méngoo ak warul ñaaw musul ñaaw warul ñaaw quoi. donc musul ñaaw te narul ñaaw loolu mooy dernier message bi nga xamante capitaine ASC ECHO wax na ko donc muy message jàmm ah. donc ñuy ñaan ñaari ASC ñu joué ko ci fair play parce que lépp ci géejawaay la yem tamit rek. final daaw joué nañ méngoo gagné ko dem final donc ren aussi dajawaat nañ final ñuy ñaan ñaari équipe yi ñu joué ko comme ni ñu ko defee fële sànq ci terrain euh, ASC Mengo donc ñoo leen fekk fa lu doy waar fi tamit ñëwaat nañ fekk fi raw donc final bi nga xamante nii mi ngi dox si ASC ECCO ak Mengo mu nekk carré euh, ko par euh, demi final tiro bi donc ren ñu ñëwaat final donc mu nekk match revanche fii seet si seen supporters yi xool nañ fi tey vraiment fekk nañ fi ASC Mengo donc fekk leen vraiment ambiance bu doy waar waar fële ñoom aussi nee euh, vendredi bu ngeen sàgganee ñoom 8 heures la leen di fekk dëkk naka ngeen préparé seen match bi. non lu ñu paree match bi ñun pare nañ. Mm. bu nekkoon suba suba pare nañ. Mm. ñoom dañu la dañu wax 8 heures la ñuy pare. bu mm. demee stade ñun bu bu bu xefee 7 heures ñu ñu teg stade war ñu fanaan stade. Ah, ah, voilà donc. voilà mu nekk mu nekk équipe bi nga xamante ne xamante ngeen daaw ñoom ñoo leen éliminé en demi-finale. ngeen war a gérer match bi nga xam te ne match bu métti la parce que ñoom boo déggee seen biir wax sànq nee nañ daaw yéen ñi xamal lii final donc ren ñi la xamal tam lii coupe donc naka nga mën a jàngatee wax googu. non ñooñu dañoo wax seen xalaat rek dañoo wax seen xalaat rek ñun ñoo leen gën a soxla final bi. ECHO ECHO yàggul mais dañoo bëgg ñetti coupe lañ bëgg lañ bëgg ñetti yëpp waaw. voilà si côté mobilisation est mën na jàpp ne ASC ECHO pare nañ. nee naa la bu nekkoon suba suba ñu mooy loolu pare nañ. voilà donc tey ñoom aussi boo gisee seen euh, boo gisee seen euh, seen seen seen préparation xam nañ ne vraiment ambiance am na fi donc sur la non violence naka ngay euh, ñaaxee ses supporters. non boo xoolee boo xamee ECHO kii moom ECHO xam nga xamee waxu violence. ECHO boo loo xamee day ñëw stade sañse yu rafet. su joueur yi sañse yu rafet supporters yi sañse yu rafet. ñu nekk ci kaw. supporters yi yëngal ci joueur yi yëngal ci suuf. supporters yi yëngal ci kaw ñu gagné dem ñibbi. voilà donc mu nekkoon focus ay